Serigne Cheikh Bassirou Mbacké mi yor kaddu xalif général des mourides Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké moo teg xeer bu njëkk ci këru alxuraan gi nga xam ne nag moom la nara tabax fii ci complexe Cheikh Ahmadul Khadim liggéey boobee nag ñu dénk ko Baye fal yi ci njiitalu Serigne Amdi Khady Fall. bi yàlla demee si Mouhamadou Mountakha ñëw. xam leen xam leen. yitteem jëpp yitteem jëpp. kon nag liggéey bii ñu ngi ko ñaan ci barke ko tàmbalee. nii ko tàmbalee. yàlla na ko ko àggale. ba yeneen ba yeneen liggéey yu bëree bëri topp entreprise bi nga xam ne nag moom la ñu dénk liggéey bi techniciens yi di indi ay leeral ci li nga xam ne nag moo war a doon melekaanu bâtiment yi. daara alxuraan la boo xamante ne comme ni ko sama wulër waxee. mooy dafay nekk daara boo xam ne ñetti compartiment la mu muy salle salle de lecture yoo xam te ne dañ koy dañ koy dañ koy xaaj bii pour biir pour jigéen ñi bii pour góor ñi gannaaw loolu la nga xamante ne moo ne ci digg bi di di di di salle boo xamante ne fa la rayonnage nekk muy lépp li nga xamante ne fa lañ compartimenté kaamil yi nga xamante ne moom la moom moom moom la sëñ li nuy xam ne ay ay ay duppee Kanzul Kitab di këruk alxuraan fii ci complexe Cheikh Ahmadul Khadim liggéey bi nag ñu door ko ci bésu tey bi gannaaw teg xeer bu njëkk muy chantier bu mag boo xam ne nag dina gën a taaral université Cheikh Ahmadul Khadim xalif général des Mourides Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké daal di ko dénk Baye Fall yi